Sarr euh, le drame de l'immigration clandestine kan mooy responsable est-ce que c'est l'État qui n'a pas pu euh, faire jaillir la lumière de l'espoir dans le cœur de ces centaines de milliers de jeunes là yi nekk di braver l'océan euh, soxna Maïmouna l'immigration clandestine est un est un sujet complexe je répondrai à ta question pour la chaîne des responsabilités mais c'est un, c'est un phénomène complexe te dama jàpp ne bu ñu ko bëggee saafara war nañu poser les les les vraies questions et puis même voir les les causes dama jàpp ne y a plusieurs causes mais am na am na ñett yoo xam ne euh, bëgg naa ci waxtaan ak sa téléspectateurs yi bi ci jiitu mooy jàpp naa ne y a une cause économique parce que euh, boo xoolee boo xoolee tey. ni àddina bi tëddee euh, du samay chiffre mais boo jëlee chiffre OCDE mbaa chiffre euh, Nations Unies daf lay wan ne alalu àddina bi boo jëlee téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi ñu ngi dans ces pays de destination de l'immigration muy une première cause la deuxième cause dama jàpp ne c'est une cause boo xam ne mën nañ ko jàpp sur le système éducatif parce que li bees léegi ci immigration bi mooy da ngay gis des jeunes diplômés qui ont des masters parfois qui sont des enseignants qui décident de prendre les pirogues et donc nous avons un stock de jeunes hautement diplômés mais inactifs et ça il faut le regarder vraiment de manière de manière de manière froide et ces jeunes là prennent également la pirogue troisième cause euh, mën naa ne c'est c'est c'est c'est politique au même ça peut même être psychologique et même parfois dans la famille alors c'est politique mooy le rêve de la jeunesse ñu bañ ko sàggane parce que un jeune rêve de liberté un jeune a un idéal de société un jeune a un idéal voilà, de servir son pays à un certain Et les événements qu'on a eu au mois de juin dernier, beaucoup de jeunes malheureusement sont décédés. Et les événements qu'il y a eu au mois de mars, je pense qu'on ne peut pas faire comme si ça n'a jamais existé. Et ces événements-là ont frappé principalement la jeunesse. Et c'est principalement eux qui prennent les pirogues. Donc, Bobo les Nietzsche. Forme même... traumatisme. parce que la jeunesse, comme Amagoul, tous les éléments d'appréciation qui lui permettent par parfois de prendre les bonnes décisions il peut arriver et donc boo jëlee donc ces ces trois facteurs là justement daf ñu indi dans une situation où tu as un jeune bu la naan man gàll kese la gis gisuma leneen alors la responsabilité elle est elle est elle est je pense que d'abord j'ai parlé tout le système éducatif avant de revenir sur l'État bien sûr l'État <laughs> bu responsabilité amee crise amee dans un pays bien sûr dans la chaîne des responsabilités l'État est toujours ayons le courage de regarder les choses en face le rêve qu'on construit au Sénégal mooy l'Eldorado c'est l'Europe l'Eldorado c'est les Amériques mais ça c'est pas seulement notre faute parce que vous savez vous avez <laughs> si vous prenez l'exemple de, de Hollywood ça a créé un rêve américain le rêve européen donc ce rêve a été vendu à travers le monde et naturellement c'est attractif donc nous avons tout ça maintenant la solution elle est elle est si tu permets moi je peux donner peut-être deux ou trois grandes idées. Mhm. je pense que la, la situation est tellement sérieuse ah, ah waaw xam nga situation bi dafa dafa dafa dafa metti ba nga xam ne dama jàpp ne même euh, tey la nation est blessée parce que chaque fois ñu perte ab ndaw boo xam ne surtout dafa nekk ci digg dooleem askanu Sénégal yëpp moo am lu ko metti moo tax j'en profite vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles parce que je connais des proches qui ont perdu des proches mais gis nga dama jàpp ne saafara si dañ ko war a li ñu ci war a jiital mooy d'abord les questions économique question économique mooy lan mooy boo seetloo ndaw ñi jël gaal yi dem bitim réew ñi ciy mucc bu ñu nee ba dugg Espagne ba dugg Italie fan la ñuy dem ci ay toolu raisin ay toolu mboq ba ay toolu fruits européens loolu waral ma jàpp ni bu ñu aménagé fii diggante Bakel ak Ndar ay téeméeri téeméeri junni hectares jeunes yooyu mën nañ leen capter dans l'agro-industrie pour notre sécurité alimentaire muy wàllu mbéyum ceeb muy mbéyum blé muy mbéyum maïs muy également viande et lait donc les questions agricoles et agro-industrielles war na nekk loo xam ne dañ ci war teg tànk bu baax a baax a baax mën nañ citer yeneen yi mais peut-être ça prend du temps deuxième élément sur le plan politique c'est pour muy ñëw sur les questions de démocratie et de gouvernance war nañu mën a créer un rêve du jeune sénégalais parce que les jeunes sénégalais dafa soxla yar sa c'est la famille xam-xam la compétence mais aussi dafa soxla liggéey et je pense que buñ ko aménagé une école boo xam ne lam fay am ci diplôme dina méngoo ak la koom-koom bi soxla de du préscolaire à l'élémentaire second moyen de euh, second moyen euh, moyen secondaire jusqu'à l'université que curricula yi ñu fay jàngale mën a jox xale bi mu conforme mu conforme aux besoins tey bu fekkee da nga une télévision sûrement war nga soxla ñoo xam ne ñooy des mm-hmm. par exemple war nañu a am une école qui forme justement ces monteurs pour que yow en tant que chef d'entreprise à voilà à justement de à 16 ans mm-hmm. pour que justement ce jeune là boo xam ne boo ko soxla l'économie bu ko soxla fekk ko à l'école donc soxna may mun a dama jàpp ne même gis nga préscolaire maanaam maternelle war nañu mën a jàngal suñu xale yi jox leen ay didactiques yoo xam ne méngoo avec la sociologie et l'histoire du pays et c'est là qu'on construit le rêve mais de maternelle koy jàngal Hollywood gis nañ foofu le tout le rêve est là-bas mais finalement dañ koy mettre dans un format c'est pourquoi ma ne dans le programme une école sénégalaise boo xam ne day fësal les références sénégalaises fësal le rêve sénégalais le rêve africain donc euh, sur l'école dernière chose je pense sur euh, euh, sur les questions de, de, de démocratie judiciaire. Donc, il faut que sur le plan démocratique, et c'est là où les réformes sont importantes. Gis nga Maïmouna euh, wax na emprisonnement tout à l'heure man je pense que war nañu def tout pour que la jeunesse sénégalaise s'épanouisse dans le système démocratique sénégalais maanaam jeune bi bëgg nekk ëllëg un conseil municipal ou un député il voit un système boo xam ni qui lui permet d'exercer ses, ses, le jeune manifester sa colère qu'on lui mette le cadre pour manifester sa colère parce que finalement et foofu lay jeexale sama kàddu bu fekkee jeune bi dafa jàpp ne fépp mu war a exprimer ay xalaatam dañ ko fat finalement la violence elle la retourne contre lui et, et malheureusement c'est donc sur le plan économique sur le plan euh, ni ñu koy waxati politique et sur le plan de l'éducation mën nañ dem même même sur le plan de la famille parce que aussi je pense qu'il faut renforcer également les familles pour que cette culture la que ces valeurs justement du Sénégal ñu mën ko gën a gën a doole donc vraiment c'est un drame boo xam ne ki qui fait tellement mal et c'est pourquoi euh, soo ma ko may gis nga boo jëlee les ressources naturel du pays les ressources minières daanaka boo xoolee leur déplacement ni ñuy déplacé woo noonu la jeunes yi déplacé woo tu koy jëli yóbbu ko bitim réew réew yi ko yóbbu fi ñu koy toggee bu fa jeune sénégalais yi bëggee dem ci immigration il n'aura pas de visa c'est pareil pour les minerais l'attapulgite c'est pareil également pour le gaz et le pétrole donc c'est pourquoi lépp lu ñu mën a def et c'est ma conviction war nañu mën a transformer nos richesses au pays pour fixer cette jeunesse dans le pays et quand ces jeunes verront justement que les richesses qu'ils ont dans leur pays togg nañ ko fi defar ko nañ ko fi pour que les emplois qu'ils vont chercher en Europe ils l'ont ici mais nañu arrêté mi immigration parce que l'immigration continue à exister autant le <laughs> que le monde sera mais je pense que on, on arrêtera justement cette hémorragie de nos jeunes talents vers vers euh, vers